wax leen ne man de li ma fi fekkoon wax naa ko waxaat naa ko toujours ma wax ko su ma ko yokkul duma ko wàññi xam naa bu baax coono yi ngeen nekkee waaye ni ko Sidé waxee sànq ak secretaire général salaire moom mënuma koo yokk ndax loolu affaire u la waaye lii ñu commencé nii nar ko def pour jàppale leen pour wàññi seeni coono luñ ci man ak lu ma ci yoon may danaa ko def bu soobee Yàlla duma digaate nag loo xam ne duma ko mën a def waaye dama ne lu ma ci yoon may ma mën koo def duma duma hésiter benn minute pour def ko jot naa waxtaan ak syndicat yi maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que wax dëgg yàlla ñoom itam won nañ ma xolu yërmande won nañ ma bëgg ma jàppale ci liggéey bii ma nekk te dama ciy profité nag di féliciter encore bu baax le maire Jean-Baptiste Diouf di féliciter Ndiaga Dieng parce que ñoom ak syndicat yi ñoo toog régler problème yu bari Daouda Badiane ngi ni du ko weddi affaire prime de prime de ñu koy waxatee prime de chantier yi vraiment dem nañ ba yaakaar na ne danañ ci trouver problème li ma bëgg rek mooy nit ñi xam ne lu mën a nekk mooy nekk lu yoon wax moom la ñuy def man duma xañ kenn li mu war a am ndax man mii di wax ak yéen syndicaliste laa woon te dama doon liggéey dama amoon salaire kon ba ma ca nekkee dama doon xeex pour les droits des travailleurs li ñu war a am yoon may ni ko dañ koy jël kon dama bëgg dalal seen xel ne leen tant que maa ngi fi de man danaa nekk ci seen wet danaa leen jàppale lu ma mën a def encore une fois yoon may ñu ko ñun ak suñu administration ak syndicat yi danañ toog autour d'une table fexe ba loolu mun a am lii ñu commencé tey nag commencement rek la waaye bu soobee yàlla perspective yi moom am na yu bari xalaat yu bari yoo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu toogee waxtaan danañ ko mën a def euh, Sidia dégg naa li nga wax yépp Euh, euh, ndimbal bi ngeen di laaj pour seen fonctionnement danañ seet nuñ ko mën a defee formation des travailleurs xam ngeen ne CFOPEM euh, mi ngi fi jot nañ fi def benn séminaire boo xam ne amoon na solo séminaire d'intégration lañ ko tuddee woon ñi doon soog a embauché yëpp ñu dajale leen former leen pendant trois ou quatre jours au niveau du centre de formation protocole d'accord global boobu aussi danañ ci xalaat ñu seet ba xam nan lañ ko mën a defee parce que wax nga ko ay ak yi moom kenn xalaatul ñu dellu ci gannaaw buñ ko yokkul duñ ko wàññi journée bi ngay wax aussi ñu def ko waxoon nañ ko xalaatoon nañ ko gis naa leen keroog bi leen ministre bi daje nañ fa bi leen ministre bi recevoir pour la fonction publique local loolu itam danañ jéem a def benn journée boo xam ne danañ toog waxtaan pour nit ñi gën a euh, approprier euh, fonction publique locale parce que ñu bari dañ ciy wax rek waaye xamuñ ci lu bari kon loolu yëpp donc prévoir nañ ko euh, kii yi aussi euh, coopérative d'habitat yi war nañ def benn séminaire pour fédérer coopérative yi parce que nag coopérative ku ci nekk def sa coopérative à part pour maire bi mun a régler loolu day xaw a jafe mais bu ñu leen fédérer ñoom ñëpp dajale leen ah yaakaar naa ne li ñu bëgg ci agent bu nekk war a mën a am këram xëy na yàlla dinañ ci dimbale ba ñu réaliser ko loolu daal laa ne woon bu ma ñëwee ma wax leen ko ah man ak sama buntu tëjuma ko toujours ma wax ko du ngeen amee lu ngeen bëgg a wax am ngeen fu ngeen mën a jaar ba yegg si ba wax ko ak ñun wax ko ak syndicat yi wax ko ak administration yi ak administration bi te luñ ci mën a faj bu soobee yàlla dinañ ko faj jëre ngeen jëf loolu laa ne woon ma wax leen ko.